nuyu naa ñëpp fii laay tàmbalee yéen ci seen revue de presse teel kafe nga guux bala ngay naan bay simbuleex moox xew ci réew mi sunu gaal gi yëgle gi ne ñenn ñi nga xamante ñooy woy ci réew mi sunu gaal di def musique yëgle gi naan maanaam ku ci siiw bëri numéro 2 l'observateur yëgle kaay ni yi kay bëri na yu 2 am na coon am na waaye waali 2 bu bambay moom lakk na caax yi waali 2 bu bambay ubbi yéene kaay bi mo ci jëmi boppam ay vidéo ak tax na sénégalais yépp di ko topp ñi topp démb ba ne wax ji moom la Ousmane Sonko naan man kàddu yo mujj ba ca grand théâtre ba nekk ni am na ñu koy analyser oublié ne na ci wàllum politique ak wàlli waxtaan communication moom Ousmane Sonko société civile bi sax wax nañ ci moom yëgle gi naan man a a xaajoog ñoom enquête yëgle kaay naan man diggante presse bi ak Ousmane Sonko fii bu doonub sëy la jàppal ni sëy baa nga rëng-rëngi est-ce tasul su soo ni ma kaay ma wax bu rëy bu ponkal bi nga xamante moom la PM def bërki démb bu moom Ousmane Sonko ubbil yéenekaay bi ci vidéo gi nga xamante moom la ma nga naan dan maa envoyé vidéo bi ni ma kii de Pastef la bokk te mi ngi saaga ka ŋaañe yoon ubbil yéenekaay bi moom Ousmane Sonko ne def ni ko def ci li nga xamante moo di sa liggéey mu ni le ministre de la justice moo ko envoyé lu ni mel docteur Mbaye Cissé yëkkati ay kàddum naan xanaa xamoo ni la république yi yëkkati ay kàddu daan lii daal jarul woon benn yoon monsieur le ministre Ousmane Sonko di yëkkati kàddu yu ni mel ndax kat lu ni mel day mel ni lu salteel sax ki nga xamante moo di ministre de la justice bi lee Ibrahima Ndiaye yëkkati ay kàddu moom spécialiste en droit des médias bi lee daan ne Sonko juum na kàddu yi waru ko woon wax laa wax bés bi le jour yëgle kaay naan man première missile waaw waaw réaction aux attaques de Ousmane Sonko Birahim Seck Forum Civil yëkkati ci ay lu ma adopter des solutions durables pour consolider la presse waaye nag du yëkkati ay kàddu di leen yëkkati ay kàddoom naan du ñu bàyyi ba tey jii nag ñun waa presse bi ci jëmi boppam ñuy taxaw ni yàcc ni yàccaaral ci képp koo xamante ne moo ni attaque gis nga lu Senghor amul Abdou Diouf amu ko Abdoulaye Wade amu ko Macky Sall ko dee su ko may Ousmane Sonko diggante Sénégal ak Israël yëglekaay gi naan maan pression bu mat sëkk bu fàtta taraj la ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi président am yëglekaay gi naan maan ay organisateurs yu bari laa la wax a organisation yu bari laa wax yu toll ci 19 ñoom ñëpp li ñu bëgg mooy l'expulsion immédiate bu ambassadeur d'Israël ca Ndakaaru Ndiaye Jal relation yi mboole seen yu nu am ñi ci réew mi askan sunu gaal gi consommateur yi yëgle gi naan man dund gu seer gi dagg moo leen jaaxal ñoom nag seen yitte jépp mooy dund gu wàññeeku ci réew mi lee wàññi teg dund gu seer gi ci réew mi askan sunu gaal kay askan waa ngi koy xaar ni Jackson Nicolas di xaare ay bi moom Nicolas Jackson yëgle gi naan man 559 la am te mënul fexe ba dugal bi am lu tolloo 14 sélection yëgle gi naan man ndaanaan dëgg lees ko mën a jàppe moom Abdoulaye Seck mi nga xamante ca dëgg dëgg défenseur la central des moom ci jëmi boppam xadar gi rapidité bi technique bi njàmbaar gi muy wone ci terrain fulla ji ak dëggu gi force bi ak jom di te dëgg-dëgg moo yéem réew mi abral yëglekaay ni ma bu wax ji neex ba nu fàtte ni am na ñu bari ci réew askanu sunu gaal ñoo xamante ne ña nga ca Ndakaaru njaay jël job ci teeskaay mbaa beneenub dëkk war fa ba woo laa wax dem tabaski ñi nga xamante ni ñoo jot a jóg fii ne nii laa la wax mer ba futu la ñu def ndax la ñuy dund ci gaaru yëgle kaay gi naan maan tar la def ci ñoom tey ci nekk naan maan ki nga xamante moo di Guy Marius nag ci jëmi boppam daal lànk ni jël du jël aw enveloppe am vox public yëgle ni ma kaay ma wax la nag Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci jëmi boppam xarum tabaski wut na ko de wut na ñaari xar yoo xamante bu ci nekk cent soixante mille ko jëndee ay waay kon mi yow mi bëgg na jënd xar mu cher cher cher a cher xoolal ci président la ca des joxal néew gi doo lay dem xeex gi nga xamante moom la xeex lu jëm ci wàllum dorog saawur indien yëglekaay gi naan maan lu man di doon ci réew askan sunu gaal na gën a xeex baa ngay wéy libération yëglekaay ni ma lutte contre trafic de chanvre l'octrice ma ni intercepté 326 kilogrammes entre diggante Ceeskaay ak Kaolack ndangaan mbir mu ne mel yéeme te doy waar lefe yëglekaay naan maan ñaari étudiant ak benn benn dëkk ñaari gaar ca Tiwaawan mboojeen yëglekaay gi naan man te ñu taaloon waa ji nga xamante moo yoroon aw jakartaam bu njëkkoon xamuñu woon ni waa ji mu doon ca ba lañ xam ni góor la ca ginnaaw ba lañ xam ni dawalkatu moto jakarta la mujj nañ xam ni waaja Moustapha lay wuyoo ceeskaay la fekk baax ca taaxi kaw ubbil yéenekaay bi waajuram wi ndaka la àgg fa nga xamante ni laa la wax foofu la takk der yi ne ko nag nekk jëmi boppam ni nu ko faate ni nu ko boomee métti na lool ginnaaw wër gi nga xamante ni moom la wër doomam ba sonn gisu ko ubbil yéenekaay bi naka la dégg ñu ne am na ay moto jakarta yoo ñoo xamante ni te dëgg-dëgg def nañ jëyee kenn kaa nga Cees ka des ca Tiwaawan ka Cees moom mbir ma doyul waar lool naka la àgg xool ni kii du sama doom naka la dem ca Tiwaawan yëglekaay gi naan man ñu ne ko fii de ki fi nekk kaam dafa jéggi dayo ndax doon ko taal ba mu xam ubbil yéenekaay bi bàyyi ba ci ak dalam daan ni nag sama doom am na loo xamante ni moom laa ko mën a ràññeet lay di dàll plastique yi nga xam ni moom laa jëndaloon magam mu waroon koo sol moom mu daal di ñëw rek gis ma sango ba noppi jël plastique daal di sol mag ja ni ah bàyyi bàyyi ko mu yóbbu plastique naka la joxe mesure ba nga xamante ni moom la daal kaay gi naan maa ñu indil ko daal yi mu ni lii de ay dàll ma ñu ne ko ndax am nga leneen loo ko mën a xàmme mu ni wutaloon naa ko lam bu ñuul mu takk ko ci aw loxoom ubbil yéene kaay bi naka la ñu de aw ma ci dëgg dëgg doom jala l'observateur yëgle kaay ne ma mbir mu yéeme te doy waar mi leen ak nga xamante ni moom la ñuy jiñ ni moo def jëf ju ni mel am na a maa nga ca jàggi ruur ga ubbil yéene kaay ba ca làmb ja sunu làmb yëgle naan man kaay xool lii kenn mësu koo gis ama giri aada fas guy gi ak yeneen naan man ni kilo le juin la fa séene am Baye Ndiaye ko indi dëgg-dëgg kontaan loona bég loona ñi nga xamante ne ñoo di amateur yi ndax lu ni mel daanaka mosu fee am ci genn tàkkusaan daanaan yi yëpp war a sëgg bëri ndax xam ngeen ni waa ji ci jéem boppam di kat na Ndakaaru Ndiaye Jal Diop adversaire u Balla Gaye 2 bii di tafaati danoon day wuti doole yée nan dem xool nu mu toll yow sëy <laughs> laatir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de yi xarit topp gi ak teewlu gi ngeen di teewlu Euh, Thiès Info Sénégal Info Sénégal TV également euh, ci li nga xamante ni rek moo di revue de presse bi ñu jaajëfal leen ci bu baax a baax dellu itam euh, kontaane leen ci jox leen ci itam seen wàcc waaye kàddu yi nga xamante ni moom la Ousmane Sonko yëkkati nag am na ñu bare bare rek ñu wax yëy yàbb ci daal di ci àddu rek ñii mu naqari leen lool ñi ci des nag jéem a xool rek nees ko analyser mu nekk mbir moo xamante ni mbir maa ngi noonu digganteem ak presse bi nag nekk diggante boo xamante ni fi ñu toll nii tamit mi ngi rëng-rëngi moom Ousmane Sonko waaye daal lu ci am ba des euh, kàddu yi daal euh, gé ngeen ni nga xamante ni noonu lañ ci àddoo wax ci revue de presse bi ndeysaan leneen lu métti lool ba doy waar mooy waa ji nga xamante ni moom la ñu faat Euh, ca Mbodiène euh, taal ko rek daal di ko euh, taal moom ci jëmi boppam nag nekk koo xamante ni wax dëgg ab jeune la boo xam ni aw moto jakartaam dong la yoroon doon ci góorgóorlu waajuram wu góor wi nag yëkkati na ci ay kàddu wax na ci rek mbir mi nu mu demee de A à ni mu yaakaaree ni rek noonu la mujjee gisee ki nga xamante ni moo di doomam ginnaaw dimaas rek gi mu ñëwee. ni ko papa nag euh, sama téléphone bi daa am benn appel bu may xaar rek bu sonee rek damay daal di euh, dem euh, moom nag ci ginnaaw bi rek mu nekk di xaar appel ba ci diggante bi muy sangook yu ni mel ba téléphone ba sonee mu dem laataa muy dem nag jël daal ki nga xamante ni rek moo di aw magam daal di koo sol daal di nag papaam ne jëndalu ko woon moom mii di tafa dama koo jëndaloon nag aw magam waaye ba ne daal di daal bàyyi dama koy sol marque ba 41 la. moom tafaa nag euh, ba mu ne daa bàyyi daal yi dama koy sol bàyyi ba daal ni ko ah waaw xaaral ma woo sa mag ji naka la ko daal di woo ko tafaa di ne daa bëgg a yóbbu sa daal yi mu ne ko naa bàyyil mu yóbbu ko euh, ca naka noonu rek la ko bàyyi ba gëj gisee rek euh, moom tafaa naka la daal di dem ñibbisi ba nëga ni mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu doy waar la ñu daal di ko jàpp rek daal di ko mel ni lu ko agressé waaye itam daal di ko buum taal ab néewam mu nekk loo xamante ni nag fii la xew ci riim askanu sunu gaal metti na lool ba jéggi dayo bàyyi ba naka la àgg rek dina daal di ko won nag yenn ci ay indice yi nga xamante ni rek jàpp na ni rek mën na cee xàmmee ki nga xamante ni moo di doomam lu ci mel ni daal ya mu loon mag jata doom ji sol ko waaye itam uh, ja lam ba nga xamante ni lam bu ñuul la bu mu ko jëndaloon rek rek daal di xam ni nag ca dëgg dëgg doomam moo faatu mu nekk mbir moo xamante ne mbir mu doy waar la euh, suturaal nañ ko nag euh, daal di ko denc fa nga xamante ni rek moo di ca armée yi Tiwaawoon ndax jëye ji fa mu amee rek foofa boobu la bërëb daal yellul ñu fay denc doomu aadama ci lañ fexe rek ba lijjanti ba jël néew bi daal di ko denc ca armée ya foofee ca tuubaa mbokk yi nag bu loolu weesoo rek ñu wax addu yi yàbbi ci li nga xamante ni rek moom moo di kafe gi nee naa leen dañu koy simbaleexoo également waaye daa am loo xamante ni maa ko diggoon maa ne képp ku commentaire ñu jaar ci saw tur du la bëgg la kontaane la ca kon ñu kontaane bu baax a baax a baax a baax a baax ñi ja ñi ñi ñi seetaan ñëpp ah macha allah ak ñi commenté Mamadou Diouf maa ngi lay nuyu bu baax a baax Modou Sey maa ngi koy biggee Mor sama xarit euh, Pullo sama nit nga yow sama xarit nga mbaa am nga jàmm maa ngi lay biggee El Hadj Sakho di biggee am am am am Omar Diallo di biggee Ousmane Samb di biggee bu baax a baax euh, Samba Balde. maa ngi bëggee Amina Pouy sama xarit la bu baax a baax a baax Xadi Pouy itam maa ngi koy bëggee Abdou Kane